précision bi may njëkk def waxoon naa ko ci début bi. Mhm. du Sonatel kese la Sonatel la Free ak Expresso. Mhm. ñoo ànd ci combat bi. Euh, li ci yéenekaay yi gis nañ ko. Euh, je pense que wax nañ ne <coughs> effectivement ñu waxoon ko dem suñ conférence de presse mooy soo jëlee deux mille vingt trois trois milliards yi sax sooy xool defaguñu estimation deux mille vingt quatre perte perte directe opérateur yi trois milliards. Bon, on regrette le fait que monsieur le ministre on lui a entendu dire que bon suñu jëlee par exemple ku mel ni Sonatel pour reprendre ses propos on a un chiffre d'affaires de 1000 milliards bon nit ñi ci daal duñu ko yëg euh, c'est gravissime pour un ministre de la République ndax àdduna bi ñu nekk nit ñi il ne raisonne pas en termes de petites pertes ou de grandes pertes mais de grands gains la ñuy xool parce que Sénégal problème boobu la ñu am avec nos autorités mooy on ne peut pas avoir un développement tant qu'on n'a pas des sociétés des sociétés nationales fortes mm-hmm. et la précision mooy Sonatel yàgg nañ koo kaas ñun en tant que travailleur c'est une société à la base nationale dont le deuxième actionnaire est l'État du Sénégal et très bien représenté d'ailleurs et qui est lié à Orange par un pacte d'actionnariat donc Sonatel nu mel État du Sénégal nu mel État du Sénégal il y a un pacte d'actionnariat jàpp naa ne yéen en tant que homme politique war ngeen laaj état du Sénégal mu publier le pacte d'actionnariat ngeen gis quels sont les liens qui lient l'état du Sénégal avec le partenaire stratégique il n'est pas propriétaire il est juste partenaire stratégique juste partenaire stratégique et toute la matière grise sont des Sénégalais amul keneen ku ñu rax